Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh mbokki julit yi ñi ngi leen di nuyu di leen nin ko daan def ak yeen rek ki tam benen leetar la wala maneen mbind mo xamni ne am na ku koy wacce muy wër ci whatsapp yi yag na lool di wax ni manam ku ko jang sa yaram na sawara boy wane ni manam kep ku ko wul sax dang ko suñu borom nga xam dem na ba de ci menacer waaye leetar bi wax ji ci nekk dama xamul ki koy wax mooy kan ki koy jàng kan la waaye tamit ku nu askanal ni moo ko bind ndax bu dee ko xam dara dara dara ci arab moom da nga xam ni li muy wax kenn mënta wax ni da xam li mu bëgg a wax waaye li wax kenn mënta wax loolu kenn xamul mu doon kon bu ko defee yu mel ni ñu du ko moytu bu baax a baax rawatina di ko jéem a tasaare ndax wax ji ci boppam daa tooy lool lool maanaam dafa mel ne xaleb mbind mi dafa mel ne xaleb CP1 buy jàng bind français waaw ci maanaam tooy ak dëng ak ñàkk jub ak kenn ñàkk mën a xam euh, lu ñuy wax ci ci ci mbind mi kon defe naa ni euh, mbind mu war a mën a tex nit mu mucc ci sawara war naa mën a jub baa mu am maanaa baa nga baa nit ñi mën a xam lu ñu cay wax kon ñu déglu benn yoon ci sa dund saw yaram xaraam na sawara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 وناسبا من الجنة واحدا من النار أستغفر الله من كل ذنب بشكرة في الدار الدنيا أستغفر الله من كل ذنب يحمل في يديه في الدار الدنيا أستغفر الله من كل ذنب يمشي في رجلين في دار الدنيا أستغفر الله من كل ذنب يسمع في أذنه في دار الدنيا أستغفر الله من كل ذنب يحسي في فرج في دار الدنيا أصف له من كل ذنب ما بين وما بين زوجته في رجله في الدار الدنيا أصف له من كل ذنب ما بيني وبين الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mooy lii ngeen gis ñu bind ko ci kayit wi ci képp koo xam ne saw iji daa des kon nag ñoo leen ko baaxee tey di sàkku ci mbokki jullit ñi képp ko gis mu yaatal ko ndax yërmandey suñu borom subhanahu wa taala daa yaatu ba mën a wàcc ci jullit ñëpp bi jaay sidil wujud muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci daraje si ahmadu bamba xaadim rasul bi jaay imam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina waaw xam naa de li ci li ci gën a xorom moom astaghfirullahu min kulli zanbin yaasi fi farjin fi daari dunia ak astaghfirullah astaghfirullahu min kulli zanbin ma bayna wa ma bayna zawjatihi fi rijli في دار الدنيا ممكن بن ما بين وبين لبن ولا واخ مم ني وما بين وما بين زوجته في في رجلي في دار الدنيا مم دال خمنا لو ييما لا ندخ ا بن مم لو غور غور لو غور غور لو خينا خم لي مبغا واخ صح امنا لو خم صح منو في خم لو في بغا واخ وبا دافاي كون يوي تي ام سولو لول ni leen ko daan waxee nag moo dina réew mi nu bokk ak dina junu bokk rek moo tax ñuy faral di def yenn leeral yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw xam naa de li ci li ci gën a xorom moom astaghfirullahu min kulli zanbin yaasi fi farjin fi daari dunia ak astaghfirullah